man nag euh, tey euh, dégg naa quand loo xam ne lii euh, bi ma ko gisee vraiment sama xol jóg na ndax Thierno Amadou Ba dafa nekk kilifa diine boo xam ne dëgg-dëgg Sénégal yëpp ñoo ko respecté tey ni ñuy dale ci kawam sànni xeer otoom ak ay violence yu mel noonu mënoon na jur musiba donc ñun d'abord violence dañ koy condamné condamner violence ak nu mu mënti mel ak fu ñu ko mëntee jëlee du du du solution te tey dafa nekk euh, bés boo xam ne bés bés bu màgg la euh, bés bu tedd la bés boo xam ne ku nekk da ngay balu ak sa morom euh, bés boo xam ne dangay ngay baale ak mu nekk bés boo xam ne nag bésu juboo la ci ak ci diggante jullit yi donc li ñu gis jaaxal nañu lool lool lool ci ci bés bi te ñu nit ñu ngi koy condamné parce que quand même mënuñu accepter ci suñu réew muy ñuy régler ay problème di wu di jël ay violence ak di sànni ay xeer di ko def vraiment temps yi ñu nekk ni temps yoo temps yoo xam ne dañu lu ñu am mu nekk ay problème dañu war a toog ñu waxtaane ko man xam naa problème yi am foofu euh, intervenir naa fa à plusieurs reprises à Vélingara pour ñu seet naka la ñuy waxtaane am problème ñun nag euh, vraiment ñu ngi wax nguur gi lépp loo xam ne mun na ko jël pour euh, protéger quand même xalif bi ce ce serait important ñu def ko tey jël jumtuwaay yépp euh, pour aar xalif bi pour lii bañ amati jëf ju mel ni bañ amati ñu seet tamit nan la ñuy taxawee parce que lii tamit <laughs> alerte la nan la ñuy taxawee ba nga xam ne problème yi nga xam ne moo nga fa am di fa di fa répété ñu seet nan lañu ko nan la ñuy waxtaane ba nga xam ne jàmm dana fa am jàmm dana sax juboo dina am ci diggante communauté yi nga xam ne ñoo nekk foofu loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñuy ñaan yàlla yàlla andi ko yàlla euh, andi fa jàmm andi fa juboo euh, xol yi gisante dëgg-dëgg euh, kooku moom mooy li nga xam ne tey vraiment mooy défi bi nga xam ne moom la autorité yu bees yi war a am foofu ci ci gox boobu